<laughs> léegi câlin amatul bàyyi ma dem rek ma diin rek ma ni Malick soo man sax dama diin ci câlin yi ah. dañ ko dañ koo tere câlin di waaw mais ci loo ne <laughs> yaa ngi <laughs> yaa ngi si jàmm bu baax baax yow nag. mais da nga se seeti xaar. cinq seeti cinq seeti c'est comme à l'accoutumée quand même ah ah. ay waay simple nag c'est comme à l'accoutumée ah. <laughs> mais nu mu demee. maa ngi nii rek yaa ngi cool. yaa ngi baax mais weekend bi gisuma la de. c'est vrai weekend bi kay moom. Ah. dañoo sonnoon nag. est-ce que du maa nekkoon ci tunnel yi. yow yaa nekkoon ci tunnel ah, yi waaw maa ngi woon ci ay xat-xat nag. parce que bu ñu jógee ci émission bi rek déggaatuma la. Ah. c'est pas c'est pas normal maa ngi woon ci ay xat-xat topp yu <laughs> mu dugal mu ci xat-xat yu métti numéro 6 mënu ma loon wax na mel. boss mooy numéro 6. Ah! mais bonjour. ñëpp képp ku ñuy seetaan maa ngi lay nuyu di la def un gros coucou coucou Sidi Malick ah équipe technique bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. donc <laughs> Kheucha Malick a ngi nii Malick gis naa gis. mi ngi ñëw de Malick gisoo kaay ko ba sa ñëw na. mais Malick yaa ngi si lay topp yow rek lay topp. na. ça va ça un week-end très chargé mais bon ça va. tu as pu gérer quoi. j'ai pu gérer. tranquille ah, alhamdulilah bi est ce que duñ ci dugg rek. xool xuus mais tey nañ jël suñu temps daal. Ah. waxtaanee kaay waaw. xam ah, nga kaay na nag kaay ma la benn affaire est ce que xam dafa bëri mais dafa am yoo xam ne mënoo ko wax ci télé. yaa yàlla. internet bi kaay fa bari na de. <laughs> waaw mais du lépp lañ mën a andi ci télé da ngay segg. voilà télé da ngay segg xool li nga xam ne mën nga ci wax. nga wax ko ci donc Grégoire Ndama Torino ci loo ne. j'espère que birthday bi euh, sonnoo ci torop. Mm, nee na gisagul non non moom joxuma woon cadeau. ah ma wax la nag eh, Grégoire rek tubaab la de rek boo ko joxul cadeau du la jox xaw ma lan la. non non man loolu joxuma cadeau du ma la jox cadeau alxuraanu kërim boo ko joxul du la jox. <laughs> invité naa ko ñëwul joxuma ma waaw ba pare nga invité jëndal ko carte. jox ko carte boo xam dafa waroon yegg ci barab bi. ok dagal la billet wu cent quatre vingt si woo yow loolu rek cadeau la yeggaleel. mi noonu nañ dem. kon nañ dem ci Actu-Net. <laughs> Gré lancé ma élément yi one by one rek ñu daal di ciy xuus. Donc, Recha, l'aéroport international Blaise Diagne a été déclaré l'aéroport le plus propre et le plus agréable d'Afrique selon les ASQ Awards. Blaise Diagne Blaise Diagne man dëgg la. Ah. dugg naa aéroport Bamako dugg naa aéroport euh, euh, Abidjan. Ah. mais sincèrement suñu aéroport non seulement dafa taaru mais ñi fay liggéey Recha dañu ñoo ngi def liggéey bu jéggi dayoo. ils sont gentils ils sont adorables ñoom ñëpp maa ngi leen def coucou. képp kuy liggéey aéroport euh, Blaise Diagne Aïcha bàyyi ma Marème moo mooy dagg sama xol bi fii. foo ma def nii sama téléphone bi na xale bi su ma ko toppee du ma def sama émission. nga ne aéroport Blaise Diagne moo gën a moo gën a set eh, ñun ñun ñun nañ di nekkee. barke macha allah yal na yàlla xeeb doolu ñu yàgg koo jël incha allahu rabbi. loolu c'est un honneur un plaisir la donc loolu noonu lu nice la ci image Afrique ñu la ciy tudd. rawatina bu Sénégal en tout cas merci beaucoup euh, ci dégg bi rek kontaan nañ ci macha allah. na gën a set na gën rafet. jestem. Aż, aż, aż, aż takna jestem. suñu chanteur international Ash the Best Kheucha takk na yes na mooy e, xale bi jigéen bi nekkoon dans la série Karma te ñu ko doon wooyee Virginie. ñu leen di souhaiter un heureux ménage sëy bu barkeel. ah yàlla may leen ci njaboot ju barkeel incha allah couple bu nice la nag. macha allah ils sont magnifiques ils sont des jeunes donc yal na yàlla xeeb dolli yal na yàlla sàmm leen defal leen tawféex en tout cas ça fait plaisir de voir que nit ñi ñu ngi takk man maa takkut man maa takkut rek waaye nit ngi takk te dinaa takk incha allah donc topp fii di wax ay a ménage rek te ma ne heure vous inquiétez pas. sa takk ah deux ans avant. parce que. te lu la deux ans avant te mu ma ma mën a takk ci 2024 bi. mën nga takk ci 2024 mais avec parce li ma bëgg a def xam nga mairie ñiy def takk or ay kilo or. dama oh. bëgg a def loo xamante ne. dañuy naan loolu lii musu fi am. ba pare bi 13 laa koy def. i ca ginnaaw bâche ba ca bâche bi yëpp day am jesner buy boobu sama génn. waay waay boobu xew xew xësa ak gratiat laa ko yóbbu kon parce que. <laughs> sa loolu xajul ci mbedd. <laughs> kon grand théâtre laa lay laal incha allahu rabi. grand yàlla yóbbu ak jàmm en tout cas félicitations yal na yàlla leen. ayca euh, defal leen njaboot gu barke incha allah. donc euh, boo xamante ni day roy Mouhamed sallallahu alayhi wa muy mooy mag ñu baax ñi mooy saxaaba yi mooy ñu leen topp Mouhamed sallallahu te loolu si la ñuy dee si la ñuy dund te incha allah si la yàlla teg. wante man benn euh, question laa bëgg a posé. mooy que vidéo boo ko yëgalewul duñu comprendre Grégoire. en fait ñaga sa daal seer na nag. temps yi maa ngi gis tey nga daal di seer. dafa am benn polémique bom am sur les réseaux sociaux comme quoi que. nit ñi euh, borom charrette yi ñëw ci koñ yi. ak borom mbalit yi. Euh, ak ñiy jaay mooy ñi yor seen machine yi di ñëw. comme quoi que dañuy déranger dëkkandoo yi comme ni ñuy xëyee fajar di naan euh, ba borom mbalit bi ni muy klaxonné. cleng cleng cleng ah, cleng ça ça a créé beaucoup de polémique parce que nee nañu euh, àqu dëkkandoo dafa am ba ci l'islam sax dañ koo wax léegi am na ñoo xamante ne nee nañu comment se fait ñi ñu am seen xol bu xat pourquoi duñu supporter nit koo xam ne day jaar juste pour une minute pour yëngal kii yam pour juste aviser nit ñi que mi ngi romb pour au bu moom affaire a créé avec ñi nga xamante dañuy ñëw di def seen oto mbalit matinal bi pimp di romb ak ñiy romb yor seen machine yi naan keleng leng leng wala tu es avec ñi nga xamante ne ils sont dans les maisons ñu nekk affaire daf leen di déranger. bon d'après ce que j'ai entendu ak li nga wax man maa ngi doog a bi sax mais ñiy def keleng leng leng leng di romb loolu yàggul. c'est juste un moment. par contre. oto mbalit ah ñoom ils abusent. pp bi boo ko defee ñaar ba ñett ku la déggul demat sa yoon mais dañ koy jàpp de oto mbali di peut-être moo tax nit ñi di wax parce que am na ci ñoo xamante ni ni ñuy klaxonné civilisé wul. c'est vrai dafa war a am civilisation bu nekk ci ni nga koy defee mais di klaxonné ba yee nit ñi loolu xëy na peut-être moo tax nit ñi di wax te et c'est vrai amul koy wax ni que klaxon oto mbalit yi te loo wax ni dafa fort donc boo defee ñaar ba ñett nit ñi dégg nañ la c'est bon buñ la déggul euh, bu bu ëllëgee kooku xam na ni yow benn yoon ñaar yoon ngay klaxonné exactement day génne mbalit tam teg ko c'est vrai de c'est vrai de maa ngi noonu donc daal gré gré gré Dama Torino alors Kheucha en Mauritanie l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz mooy euh, ki jóge ci nguur gi récemment mm -hmm. donc il a été condamné à cinq ans de prison ferme pour enrichissement illicite loolu daal suñu dëkk la xewee moom nag jiite woon na suñuy réew franchement kon président yi bu ñu bu ñu paree mën nañ leen topp ba tëj leen waaw loo foog ku nekkatul ci nguur kay fi mu nekk ni yaag ñeneen ñi nga xamante ne nii ay citoyen yéen yéen a yem quoi quand on parle d'un président en fait tu vois ce que je veux dire euh, c'est rare de voir ça mais bon doy na waar daal na ci na nañ ko bàyyi ci loxo yi yoon rek comme que mhm. yoon ko teg loxo du dëkk waaw waaw ah, te sa dëkk la du sama dëkk sama sama dëkk sa dëkk la ah. yaa ma ni maa yow 2012 ba tey te à tout moment mën nañ ma convoqué ndax rubrique bii nii te damay gunge su may de boobaa dañuy dem ndax Mauritanie nag wax dëgg yàlla dama leen bëgg ñoom moom dama leen bëgg wax dëgg wax dëgg sama dëkk la ah Mauritanie ba bari ak ka nga fa ay soppe dañ bëgg yow luy ah, loolu Mauritanie dem naa fa man rek lañuy topp maa ngi leen marax ba bik wan ni ba biikum gré si taari maa taari si. maa ko jàpp <laughs> xam nga luy si taari. taari xam naa ko kay. mooy la. <laughs> lu bees. waaw maa taari si dara beesul mooy maa taari si. <laughs> xasa ko la jàngalee. ay tamit ma ne woon Mauritanie. Ah, waaw waaw waaw naa Mauritanie de. alors Grégoire. lancé ma beneen élément bi. Bachelor Afrique. Richard. mu nekk télé-réalité boo xam ne y' a trop de tension. Hmm. beaucoup beaucoup de tension avec Clive. donc gisoon nañu Sénégal bokkoon na ci euh, ren. Euh, euh, benn xale bu jógee bu tudd Yaya bu ñu représenté woon. Yaya normalement tey bokkoon na ci say invité je oh, pense. laa de Yaya fu toll ma mëree mi. Euh, yu bëri lañ jël ci ci en Afrique Mali Côte d'Ivoire. ok lan moo doon bachelor bi comme télé-réalité yi ngay gis en Europe. Ah. ñëw di chercher un amant góor booy bëgganteel. donc waa ji dafa nekk di chercher l'amour de sa vie. donc xale bu jigéen bu ci nekk célibataire dem représenter sa pays. léegi nag le problème mooy ça a créé beaucoup de tension ba Congo actuellement dañu porter plainte pour que ñu arrêté du canal arrêté di ko diffuser parce que le gars dafa daan am ay moments intimes avec les filles. Eh. maanaam il flirtait avec les filles et eh. tout ça oui. tu vois dañu doon du bokkul ak suñu suñu suñu suñu aada daal surtout ñu au Sénégal je peux dire ça parce que euh, en Côte d'Ivoire et tout ñoom peut-être euh, dérangé wu leen et ñoom ñu xam mën naa ni sax ñoom ñoo ñu gën a mën a accepter loolu qu'au Sénégal parce que xam nga ni Sénégal ni ñu xiiree ci xër la ñuy wax nag ci l'islam bi ci diine bi et tout ça donc Yaya elle a été éliminée très tôt mais euh, ñaari xale jigéen yu mujj yi on a vu que le bachelor depuis le début def leen daf leen ciblé woon. mais il a eu des, des moments intimes avec toutes les deux pour au final choisir l'une d'entre elles ba ci veille bi sax bi muy choisir kenn ki ki mu éliminer mi ngi doon flirter ak kooku te lépp ñu ko doon wane Côte d'Ivoire moo moo mujj gagné fii ci Côte d'Ivoire fii ci Afrique Côte d'Ivoire lañ ko defee Côte d'Ivoire euh, moo euh, ivoirienne bi moo ko mujj gagné elle s'appelle Zeynab elle a 24 ans donc actuellement maintenant moom dafa am lu mu tegoon xaalis comme ku gagné wala dafa ni leen après. il y aura une avec lui da ngay moom nekk ak moom mu takk la. da ngay génn ak moom pour mu takk la il cherchait l'amour de sa vie donc là actuellement il a trouvé ses Zeynab mais Ivoiriens dañoo mer Ivoiriens dañoo mer parce que ñoom ñëpp dañu préféré Samira. Samira, Samira la fille s'appelait Samira. ah daf ci am ku tudd Samira. oui je pense qu'elle représentait le Cameroun. ñun Yaya moo doon suñu. candidat ñun Yaya moo doon suñu. candidat man Yaya laay xaar. naa mu ñëw pour ma poser ko quelques questions. ci ci waaw kay yow foog foog foog foog ñu taxaw nii. ñu jàkkaarloog Yaya. mais est-ce que de du ma dem représenter le Sénégal. <laughs> <laughs> ndeysaan demal. bëggoon leen ma représenter Sénégal bachelor. yow ay góor a ngi fi. Ah. looy wuti ji feneen góor góor yi disponible a fi di <laughs> ay góor yi dis disponible na keneen ak keneen disponible la nga ne da ngay dem ba Europe. ah concours ma dégg man naan la rek comme que essayé naa fi ba sonn aw ma woon bàyyi ma dem feneen rek. ah elle est à l'entrée hein. ah elle on continue avant qu'elle vienne. on continue c'est très important ah. yaakaar naa suñu rubrique euh, deux trucs rek moo des Grégoire nañ dem. alors joyeux anniversaire à son excellence monsieur Macky eh. Sall. donc tey l'anniversaire am Kheucha. Eh. Sall Ngari Lam Tooro. yaayaa ngi nii yegsi na. ok son son excellence monsieur Macky Sall tey l'anniversaire am Kheucha. ma bàyyi la nga souhaité ko joyeux anniversaire. ah tey l'anniversaire am. son excellence monsieur le président de la République du Sénégal venez ici par euh, par ici s'il vous plaît. donc euh, joyeux anniversaire à vous et que cette nouvelle bougie euh, vous donne beaucoup plus de bonheur yàlla sàmm ko. defal ko tawféex ba lépp lu mu ci bëgg rek euh, suñu borom bi defal ko ko. merci beaucoup ci li mu def ci Sénégal merci pour le travail. merci pour le travail. bi nga ñu defal wax dëgg yàlla gis nañ stade bi euh, gis nañu li nga xamante ni moom moo di tali gis nañu lépp. Euh, wax dëgg yàlla yàlla nañu yàlla defal taw tawféex ba ñu amaat beneen président bu gën a mën a def lu ko raw. donc loolu la ñuy ñaan suñu borom bi defal nu ko incha allahu rabbi te xam naa ni man moom sama waa ji war na koo mën. amiin amiin si laab laay du dëgg. dëgg la waaw donc ñu dem ci euh, mariage u Dieyna Diawo et Samba Peuzzi donc Dieyna Diawo di doom ci monsieur Mamboy Diawo maire de Kolda. Samba Peuzzi de suñu international rappeur bi Kheucha borom foo ba raw leen donc euh, ils se sont mariés ce 10 décembre 2023 ñu leen di ñaanal sëy bu barkeel Grégoire élément yi s'il te plaît wala amul élément bi. ayca euh, ban élément la. mariage yu Samba Peuzzi ak Dieyna Diawo. ah d'accord euh, il peut nous montrer l'image tu lui as envoyé l'image. c'est bon. montre-nous l'image euh, ñu félicité sama jigéen jooju di Dieyna euh, Diao. waaw di ko ñaanal yàlla sëy bu barkel di ci nuyu sama frère Samba Peuzi moom tam di ko ñaanal yàlla sëy bu barkeel. mariage bi nag mariage privé la woon. ah oui parce que aski boo doon dugg boo dugge ci kër gi sax téléphone du dugg téléphone bi dañ koy téye ci ah à la porte parce qu'il voulait que ça soit un truc privé donc euh, mais noonu. gars yi nañ de. ba pare dib dund gis dañ ko téye woon devant la porte il disait donc moom it mu forcé mu ne par force day dugg ci biir. dib lañ téye waaw. <laughs> moo waral téye moo tax invité wuñ la xam nga dib sax dañ ko invité. waaw moo tax ñi ñu invité wu loon ñooñu dugg ñu. c'est vrai man fuñ ma invité wul du ma fa dugg. déedéet fuñ ma woowul fa dem. mais nit da ngay diñ te du ci ñàkk ak am. ngor la. Mm-hmm. ñu la bul dem. c'est vrai. mais boo demee foofu ñu gàcceel la nii xam nga loolu baaxul. macha allah donc félicitations Samba. félicitations Dieyna yàlla na yàlla sàmm leen defal leen taw feex bu baax a baax naa nekk ku baax. koo xam ne wax dëgg yàlla bi ñuy xamante man moom c'est depuis belle lurette aussi depuis les temps de euh, seen petit galet euh, donc euh, les jumelles maa ngi leen di nuyu yëm ñoom ñaanal jàmm beneen jumelle aussi yàlla na ko yàlla may jëkkër ju baax moom tamit bu ko mën donc loolu leen di ñaanal incha allah Mbarak mi ngi koy takkal micro ou pas ay na takkal micro ñu daal di enchaîner ak. foo nga toog Kaaw Bachar yi bii bala bii dama koy toog ba mu sës. ah tout moment ba yaa ngi déggam déedéet waaye xale MJ bu takkul damay dem de. ah ah, ah damay ah, dem. waaw baax na MJ kon takkal M. Takal, Takal balaa moo dem bu demee Côte d'Ivoire du baax léegi Grégoire on peut mettre de l'ambiance avec euh, le King Ambiance Bastion pour le plaisir des <laughs> téléspectateurs et juste après ñu dalal ki nga xamante ni moom moo di sunu invité nous allons nous mettre